ndikoo ci jàngat bi nga xam ne ñi di waa programme d'analyse des systèmes éducatifs di Confémen waatum 2019 ña bokk ca kuréel gile ci la ñu amal conférence de consensus bile saytu boobee nag la ca tukkee mooy ne njàngum mathématique bi dafa sooxe c'est-à-dire waaw léeg nag ñu daal di am ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci jeexitalu primaire téeméer boo jël juróom benn fukk yi daanaka sax ñoom du ñu am astut ci wàllu mathématique loolu moo tax ñu daal décidé dajale ay parties prenantes ci wàllum njàng meek njàngale mi présenté leen recommandation yi nga xam ne moo tukkee ci PASEC ci atum 2019 ngir rek bu fekkee ne dañuy defaat beneen évaluation ci atum 2024 ngir ñu mën a am téeméer boo jël dina yegg sax juróom-ñaar fukk wala juróom-ñett fukk yoo xam ne ay ndongo la yu ci CM2 ñoo xam ne kat daañu am as tuut ci wàllu mathématique. ba tax jafe-jafe yooyee sax ñu gën ci waxtaan ci ndaje bile ngir indi ci ay saafara. waaw loolu ay xàll la yoo nga xam ne daal day tax bu fekkee du ñoo jëfandikoo li nga xam ne mooy làkkum réew mi ca l'école ba ay jumtukaay yi nga xam ne day tax rek xale yi gën a sawar waaye tamit euh, thématique yi nga xam ne moom la ñu daal di am loolee mu gën a leer ci résultat yi nga xam ne moo tukkee ci wàllum ceet ak li nga xam ne tamit indi ay leeral ci jury bi nga xam ne moo war a dajale daal di mën a teg ay recommandations. ndogal yooyu nag kii di ministère bi ñu dénk wàllum njàng mi ak njàngale mi di ko xaarandi ngir boole kook yi nga xam ko ngir gën a ñoŋal njàng mi. am na ay ay ay tëralin yu bare yoo xam ne ministère mu ngi koy teg pour mën a gën a jàppale xale yi ci njàng mi ak jàppale jàngalekat yi ci jàngale mathématique ak science. résultat yi ñuy am ci ñaari fan yi dina gën a tamit tax tax ñu mën a gën a orienté waat suñu système bi. ci enseignement des sciences et des mathématiques. ñaari fan waxtaan yi nga xam ne dana dox diggante ay boromi xam-xam ak sax ay représentants yu jóge ci assemblée nationale loole nag ngir rek gën a yombal njàngum mathématiques yi ci école primaire yi.